asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu wax ji man sëriñ Longhor Mbaye sëriñ Longhor Mbaye maa koy wax ci déclaration bi ndaw si wax ah, déglu naa ko déglu wax yi mu doon wax yëpp dégluwuma nag bi ma koy wax eh, dégguwuma kàddu yi kanam gi laa xool ak di déglu xol ba ndax jamono ji dañoo àgg ci fimu mu ne ah, li benn waay di wax ne dama laa xama xama xama xama xam ba bu may wax ak booy wax ak yow duma la déglu ndax li nga doon laa gën a xam ci li ngay wax moo ma dal ci ndaw si man awma soxla ci li muy wax li mu doon laa xam ba awma soxla ci ndox si damay wax ne ndaw si doole ji mu yor ak la ko jiitu ak ñim àndal du daray lu ñu yéeme sëñ Tuuba nekku ci lu ñu koy waaroo nekku ci luñu ko ci jàpp di ko askanale nekku ci ndax sëriñ Tuuba dafa jóg na dann yonant bi sallallahu alayhi wa jaar ci ay bëgg-bëggi sunu boroom ak i tereem ba yàlla may ko loo xam ne muy ko kenn ku yàlla bind loole nag la muy bari bari bari bari bari dara génn ci lislaam damay fàttali it ne loolu yi ni ko sëriñ Muntaxa waxe bi mu koy def ci ay jafe-jafe la ko def ay noon la àndal fanweeri at ñu koy gàllankoor wut mu àgg ci boroomam foo xam ne kenn mënu fa àgg ba am lii mu am tey jii li ma bëgg a xam ma bëgg a wax rek mooy noon yooye bayiwuñu dañoo bayiwut te it man li ma gëm te jàpp te am naa ci yaqiin ndaw sii daa bokk ci ñi nga xam ne ak yu mel ni ñoom noon yooye ñoo leen di xalaatal di leen jëfandikoo pour diaboliser yoon wii ak di fas yéene di wéyal lañ seqoon ak sëñ Touba dafa am lu ñuy wax ay féministes bari Sénégal ba àgg ca France sax ab imam am fa bu jigéen ak seneen ndaw su nekk ca Tunisie bindal beneen livre bu gën a garaaw ci yonant bi sallallahu alayhi yoo xëye ñoom li ñu fas yéene def mooy lislaam moom jàpp nañ ni luñ fi war a jële la ndax joxul àq ak yelleef jigéen joxu ko doomu aadama ñii ci loolu la ñuy dox réseau la boo xam ne bu yaatu la te man wóor na ma wóor yàlla ne plan stratégie ak communication ndaw si daf ko man daf ko xam parce que ñoom duñu daanu njëkkoon na génn ci sëriñ bi def benn plan plan ba def joxut jógut sëriñ bi jóg wax mu defaat lii plan stratégie la boo xam ne ni jàpp naa ne ca France am na fa ñu waxtaan ñu xam yoon wi jokkoo ay nit essayer relais ba jël ko ne ko waxeel nii defeel nii parce que dañ ñuy jàng ni ñuy jàngee dégg nga ni ñuy jàngee ni ni ñuy xëy di jàngi sëriñ bi pour barkeelu la ñuy ñoom lañuy ñuy jàngi sëriñ bi pour yàq ko kon nag nañ ci def attention plan de communication nag mooy li nga xam ne ñoom dañ cee ay ci la ndaw si jaar nun nag dañ ko war a am ginnaaw bi sëriñ bi waxee man li may proposé te wax naa ko ñu bari mooy waxi sëriñ bi alxuraan la ak sunna ak adis ak abyaati sëriñ Touba na communication na sëriñ bi am benn groupe de communication boo xam ne ci commité scientifique Rawdu Rayaaxa ci la ñuy nekk nañ jël waxi sëriñ bi dégluwaat ko bind ko génne aayaat yi ak hadis yi ak abyaat yi ci nekk bind ko arab ba mu leer ñu tënk ko def ko français anglais ak arab mu leer nañ ñi ñu tas ko ba ñëpp xam ne lii la ci sëriñ bi waxte du ci dellu gannaaw ndax wax yi loolu la yàlla bëgg la loolu la sëriñ bëgg la loolu la yonent bi bëgg loolu plan bi ala kulli xaalin kuy xeex da ngay am ay ngànnaay yàlla jox nañu ay ngànnaay ngànnaay yi mooy bu njëkkoon lu ne manees na ko dóoraloon sëñ Touba te duñu xam sëriñ bi képp fi nekkoon di bindi di wax ca la ñuy sukkandiku léegi nag mën nañoo lu ñu def lu ne mën nañ koo dindi ay boroomi xam a ngi fi ay jàngkat a ngi fi ñu xam lu ne ngi fi information yi lu ne manees na ko xam nañ fas yéene plan bu ndaw si def ñu def beneen am na ay relais yu garaaw yu nekk Europe li may wax mooy ndaw si moo xam moom la wala seexam boobu muy wax beccu xaalis bi ñuy dajale du loolu muurul suñu bët nun tabax nañu jumaa tabax indi raay bi lu ne def nañ ko te ñooñu judduwuñu woon amuñu woon ay cheikh fi cheikh Ibra Fall fi ne woon ak ñeneen ak ñeneen di ko def damane yoonu murit wi am nañ lépp lépp lépp lépp te ñoo ñuy seen yoon nekku ci xaalis saytaane boobu ñuy jël nga xam ne blanchiment d'argent képp la ak affaire u ak affaire u jigéen lañu ci dajale man yaa de cela vingt ans laaj naa benn question boo xam ne ba fii ne benn waaye ma ci répondre te loola sax réponse ba taxagul mu leer ma dama ko laaj ne ko man de damaa gis ne ñii doon ay cheikh ci sun murit yi ñëpp dañoo jàng ay université ay universitaire lañ te finance lañ génne lu tax ñu daje ci moo xam man Mansour Diouf la moo xam Béthio la moo xam dégg nga euh, benn seexub sëñ Moustapha Bassirou du fi newoon la te sëñ Moussa Nawel euh, moom reconnaître lu ko la ñëpp ñëpp kii directeur domaine la woon kii jaar na trésor kii finance la ñuy liggéey benn waay bu ma xamul ne ma dangaa xamul ne ceex gi ku jàng ba xam xaalis da nga ciy ñëw dugg ndax ci ngay blanchir argent ndax addiye moom bu la neexee rek nga ne jox nañ ma nangam te loolu la preuve mooy Béthio moodu mooy di da yi ci dàq joxe mën naa ne waa daaru xudóos lañ ñii ñoo ëpp lu ñuy jot xaalis ci Europe sëñ moodu du sañ la woon sëñ Mbàkke soxna lu ak maam moorum sëñ Murtada te ñooñi li ñuy jot ñii li ñuy jox beeco France képp mën naa doon fukkam baa ñu koy jox ndaw si kon nag loolu war nañoo laaj fan la ñoo ñuy jële xaalis te ñii may wax nii ay murit saarex yu jaar ci daara yi muritu ba wàcc seen doon ay doomi cheikh ak ay doomi murit saarex ñoo nekk Europe di góorgóoru te mënuñoo weesu deux cent millions wala trois cent millions mënuñu ko hôpital bi biñ ko fi tabax Europe gépp ànd te dégg nga si liñ ko tabaxee dégg nga ay six milliards Dame Ndiaye jàmbaar ji moo ko jiite waaye mosuñoo mën a dajale benn dëkk mësta mën a dajale xaalis yu toll ni yi ñuy génne di dugal ci yoon mi kon nag warees naa poser la question xaalis boobu fan lañ ko jógee te xam mooy li ma wax noonu sëñ Tuubaa yi ñooy jël xaalis bëgg ko cee jënd jàpp na mën nañ ko cee jënd kon nag war nañoo vigilant def attention te xoolaat te sëriñ bi ñornu te xam ne xaalis bi lu muy bari bari ak lu mu jariñ jariñ te sellut sëñ Tuubaa bëgg ko yonent bi bëgg ko yàlla bëgg ko Tuubaa giitam mën nañ koo defar ba mel ni Makka ak Madina ci barkeb sëñ Tuubaa te lenn xaalis yu sellat yooyu du fi def te loolu mënees na ko contrôler bu njëkk mënuñ ko woon mais mën nañ ko léegi manees na ko ni gouvernement bi amee ay moyens adduna bi am seeni moyens mën nañoo fexe ba contrôler ko sama benn xarit daf maa wax lu masa mas lu rëy rëy te loolu mooy dëgg daf maa wax ne ma Touba gii de buñ ko organiser ne ma population Touba moo ëpp population Suisse espace bi bokk ci Touba boo ëpp Suisse te Touba am na sëñ Touba te Suisse amu ko te Suisse dem nañu ba mu nekk fi gën a ñoŋ ci àdduna bi ci wàllu alal addina bépp fa la ñuy denc seen alal te kenn sax du fa xeex ngir jàmm képp fa am mu ne ma nag loolu yi waa ñoo ko waroon a dàq waa Suisse kon nag. nun war na noo mën a organiser suñu bopp te lépp am na fi jàngkat yépp a ngi fi lu na ngi fi nañ seet suñu bopp te moytu ñi ñuy infiltrer xaalisu franc yi ak xaalisu góor jigéen yi ak ñu mel ni dégg nga ay da ay ay ay ay ay da jàll mii la xaw ma ñooñu nañ leen moytu wa wasalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu sëriñ longoor mbay tuuba daaru xudus